ba ñu dégg ci le chef de village. Mm-hmm. moom yëkkati na ci ay kàddu ci rajo Daaru Muxti bi. donc dañ ci ànd ak moom. Mm-hmm. déglu ko parce que lu laal Daaru Muxti moom daanaka laal na. mooy Touba mm-hmm. daanañ wax euh, ne sëriñ bi waxoon na maam Thierno. ne ko néeg bu lakk dana lakk Daaru. mu ngi noonu kon euh, sëriñ Cheikh Assou Faye Mbacke la. kan moo ko ubbil son yi bu. ay ci kon ñu déglu leen. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi fi kanam Serigne Cheikh Astou Faye Mbacke xalifa Serigne Mouhamadou Habib ñu dénk ko dëkk bi mu bëgg a yëkk ci yoo xam ne day jëm ci kon bu ko ñu bokk déglu ko te ci talaata ji di fukki fan ak ñett fii ci Daaru Mujj ñu bokk déglu Serigne bi bisimilah. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam nabiyi rahma maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di xamal ne dafa am lu xew ci dëkk bi loolu nag duñ bàyyi mu jëm kaw duñ bàyyi it muy law jël nañ ci ay mesures yu mat tagguwun ci ma sàmba nag tagguwun ci ma demba kuñ ci jàpp sa doom wala ñu téye sa doom na nga xam ne sa doom a def la tax ñu téye ko moo moo def la tax ñu jàpp ko mooy dañoo takk ay ndoom ba yësi xaw ma yësi la xaw ma lu mu mën doon di jamante ci seen biir ak di jam seen bopp mu mujj nañ àgg tey ji ci ne dañuy toj essence ba ca euh, marché ba ba sànn ma di intervention am na ci koo xam ne daa jam boppam jam na boppam ba pompe yi moo ko jël si xamuñu dana dee xamuñu du dee amoon na Touba barki démb kooka daa jam boppam ba faatu loolu nag doon ko bàyyi mu law ci biir dëkk bi ba ñu nu ci dara yéen boo yéen ñi nga xam ne nag yéen a yilif gone yi yéen la ñuy waxal waaw fab gone goo xam ne gii amul fukki at ak amul amul fukki at amul juróom-ñetti at jox ko sareet mu dem foofee ca marché ba euh, ànd ak ponkor yoo xam ne yii Mbacke Kadior TV Mbacke Kadior TV ba yàgg ñu ne nag léegi dañuy toj essence bi ba sànnmari dafa def intervention ngóor soo su ñuy wax bàyyi xalit yàlla yi oto ko jël si ma te moo jam boppam boo demee ci essence ba deret ji dafa tuuru léegi nag jël nañ ci ay mesures danoo wax ne yéen yi nga xam ne yéen a yur gone yi taxaw leen ci gone yi buñ ci jàppee gone kenn ku ne fex dem ci sëriñ te bu ñuy gone yi génn doo ko ne foo jëm bu yendoo àll doo ko ne foo yendu ah bu fanaanee àll doo ko ne foo fanaan waaw defal defal tu ci gone yi dara dara dara dara lu xew ci gone yi bokk yee parents yee nday jeeg baay bee faale wuñu leen yëguñu leen toppatoo wuñu leen du ñu xam fu ñuy yendu du ñu xam fu ñuy fanaan

tey ñuy wax wéeru ci ndigalul turandoom wéeru ci ndigalul ay bokkam waaw waaye dañ ko wàcc waaye nag ginnaaw buy dem duñ ko ne foo jëm ginnaaw buy dikkee duñ ko ne foo jógee liggéeyul lenn lu nekk ca marché ba takku ndomba commandant bi ne bu takkee ndomba gi fukki ponkal yi ci seen jëm bopp buñ ko jàppee duñ ko mënal dara bu dul woon ak Cheikh Fall na ngeen fekk nañu toj essence bi bu yàgg moo daw jël si gendarmerie gendarmerie woo dem ci ngóor jam boppam pompier ko ba ma nga hôpital léegi nag li ñuy xam ne mooy jox nañ leen ay ay yu mat dëkk moom danañ ci taxaw loolu lépp dana leen seen doom yi te yar leen téye leen seen jëm da ngay toog waxtaan ak moom di ko yedd di ko digal waaye dara bu xasee am juróom-ñetti at nga wut sareetu mbaam jox ko wala nga ne ko demal defi leneen jànguñu alxuraan jànguñu tubaab murit wuñu wéyuñu seen digalul bàyyi kon nag loola nun dana ci taxaw tem kuy yàqu nag na nga yàqu waaye dëkk bi moom du ci bokk ba ñu ñunu ci dara a wasalaamualeykum. fii si Touba mbokk yi saa su ngeen itteewatee pressing ak blanchisserie bu méngoog jamono ci ay machines yu xarala personnel bu xam wàll wi seen pressing blanchisserie Cheikh Mouhamed Lamine Bara Mbacké si Touba nekk si usine glace route de Nindi sa càmmoñ si wetu pharmacie bi jàppale ni nag bu ngeen fi accès da ngeen fi fekk soxna Muslim Mbacké mooy la responsable moo leen di taxawu ak équipe ba mu àndal doon équipe bu xarañ professionnel xam wàll wii mbokk mi bu fekkente ni nag da ngaa bëgg fóotlu ci pot bu mucc ayib seet loolu waaye tamit gën a neex mooy yëre la bu ànd ak couleur da koy gën a renforcer couleur ba day gën a rafet ngay seen muy gën a éclaté bees tàq muy rouge wala bleu wala jaune doo si am dara lu la naqadi bu fekkente ni également da ngeen am yëre boo xamante ni dafa am tache tache nag moom mën na bàyyeekoo si lépp lu ñu jëfandikoo wala encre bu tuuru wala matière bu mën a doon maanaam daal yëre bi moom bu gàkkee jàppal ni ak sunu ay produits fii si seen pressing blanchisserie Cheikh Mouhamed Lamine Bara Mbacké da ngay am la nga bëgg da ngay kontaan am benn trace lii nag mbokk yi ñoo xam wàllu wi pressing bi mbokk yi mën nañu liggéey xam nañu wàllu wu nu mel te nag boole kook set ak sell mën na nag liggéeyal ku nekk bàyyi xel loolu kilifa yeeg dëkk bu sell bii di Touba bu fekkente ni seen biir kër da ngeen am nag ay dara ay rideau wala jumtukaay bu ngeen bëgg mu seet lépp a yemb suñu ay machine xarañ na suñu personnel naka noonu kenn du ñoom waaye nag la gérante soxna Muslim Mbàkke moo leen di gàttandu taxaw si lépp lu ngeen bëgg yamuñu foofu de dañuy passé ba mu am ay pli ay boo amee sa trois pièces indi ko fii wala nga am sa xaftaan jàllaaba yëre jigéen bu mu mën a doon grand boubou taille basse kulim ju boo fi ñëwee doo ko réccu ba mu saf sàpp boole koog yëre bi bu pare day xeeñ neex moo fa jaar produit benn effet secondaire sa biir yaram da koy gën a préserver day gën a dëgër day gën a bees gaaw leen gaaw woote si 77 514 34 30 77 514 34 30 bu ngeen fi accès xam ni seen jafe-jafe si wàllu setal jeex na bis ni ki tey